الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متقلتنا من لي بقوم خلفتهم التدريس في الليل والنهار في كل ساحات من من لي فان لاي جليتي فما كوي غيسه بقوم غا يو خامتene خلفتهم لي سن ميتش bu commerce de mhm. du napp de mhm. du utu xaalis mhm. waaye seen métier mooy ak tadrisu mooy jàngale baritu Amar ibn Abdul Aziz dafa waxoon ne boobu mu bind leeta boroom xam-xam yi ca Madina ne leen génnee xam-xam bi ngeen jàngal taalibe yi te lu ci mën a bind ngeen sotti ko bind ko surtout hadis yonente mu ne gis nga xam-xam li koy sànk mooy ñàkk koo joxe wala déet waaye fekk ñu ngi koy joxante rek mu ne xam-xam du sànku xoolal jamono bii nag lu tax njàng arab bi wala njàng alquran suuxat wala déet dëmb rek am na ku ma ko doon wax mu ne mu ngay jàng beneen lii la war dem université looy defe université mu ne àngale lan nga buggu mu wax ay yi nga xamante ne moom mooy solution yi mu bëgg bu ëllëgee la xam-xam balay sànku mooy ñàkk jàngale am ñooñu anañu mm-hmm. parce que tey ji boo gisee ngaa jàngale mm-hmm. da ngaa gis koy jàngal waay mm-hmm. man mi maa ci teg sama bot dem naa sifo karamoo mama nding li ko yàlla may ci doomu xam-xam maa fa dem mu génne si ca takkusaan ba tamit noonu la dugaate ci biir néegam gisul ku mu jàngal and pareetul de waaye bu leen ko rey na bu leen ko rey yéen na dem jàngale man lii mhm. fan laa koy jëlee di mhm. ba kaw min yoo xam ne xirfat xam nga la moo nekkoon seen métier mhm. ak tadris jàngale te dafa am loo xamante ne boo gisee safara taxaw di takk ci ko nga dem yàgg mu commencé mètre yi di wàññeeku mu wàcc ci suuf danga gis mu yem fan ci os bi nga dem ba mu yàgg ngay gis yéen yi doo gis yéen yi fan la jëm fa alam anna kasaaraahu kusaaraahu nafaadun wa tawa nga xool ci àll bi fii nii yëpp daara la woon dëkk yëpp bu ci nekk daara la woon nga ñëw fii sur mag kër gu ci nekk daara la woon mu nekk moo tax na de wala de raglu na de di nga doon dégg diw sangam ndeysaan borom borom mbaax la wala de dëkk boo dem nga fekk fa taalibe waaye léegi taalibe ñoo jël seen doom yi dugal leen français da ngay nekk taalibe de sa doom yëpp jàng français sa téere foofu la ñuy toog di jooy te amu tey ji mm-hmm. ci nekk de laa la wax mm-hmm. léeg-léeg nga gis bu mat sëkk bu mel ni kara moom ma waaye gisul taalibe mu jàngale parce que gars yi bëggatuñ loolu di ñooro moom la ñu bëgg xam nga di ñooro xam nga lakk ban la espagnol oh, di ñooro mooy fuluusu loolu rek la gars yi bëgg léegi de mu ñëw nga du nga ñuulal daxa bi mu ñuulal nga ne ko sotti ko fan lay gisee di gars yi nga xamante ni seen métier mooy jàngale mm. ñi ko man gisuñ taalib bu jàngal mm. ñi ko manul ñooy taxaw da jël mbooloo mbooloo dar leen ñuy fen rek ñaar yooyu moo ko am foo koy gisee doo gisati daara daara yi wàññeeku nañ de wàññeeku nañ de kon moo tax ne man lii mm-hmm. waaw fan laa koy giseeti mm-hmm. bi kaw min gaa yoo xamante ne xiir fan mm-hmm. xam nga lii seen métier attadiri su jàngale amatuñu jotam ñu nga ca tukki ya rek amatuñu jotam de ñu nga ca kilim ya mm-hmm. amatuñu jotam de mm-hmm. ñu nga ca télé ba mm-hmm. amatuñu jotam de ñu nga ca conférence ya amatuñu jotam ñu nga ca taxawalu ba yooyu yëpp ci la dafa am lu ma lijjante fii yëpp dafa bokk ci nga xamante ne def laa tere parce que dafa dafa fiir jàngale dafa fiir boo ko boole a leneen rek gis nga ni jàng fiiree njàngale moo ko gën a fiir jot bi ngay am bi ngay jàng sax bi ngay jàngale sax daanaka dafay gën a satire da ngay gën ñàkk jot xam nga ne gisatuma leen mm-hmm. fi léegi bu guddi jotee mm-hmm. ñu nga ca njàngale mm-hmm. wan nahaari bu bëccëg jotee ñu nga ca njàngale waaye itam fi kulli saati ci géew boo dem njàngale moo koy booleeg nit waaw ba mu ne la fi léegi bu guddi jotee ñu nga ca njàngale wan nahaari bu bëccëg jotee ñu nga ca njàngale fii kulli saati ci géew yëpp nag wala déet xam nga sëriñ bi wax na ko mu ne paa boobu jàngal na ko ba quatre heures paa Abdou loolu lu muy firi mooy jàngale na ba quatre heures wala déet jàngale daf laa jaral de aha daf laa jaral de boo ci xasee joxe sa bopp rek jeex na waaw wala déet léegi alquran ci ñun lañ koy jëlsee wala déet duñ ko jëlee ci safari de duñ ko jëlee ci gars yi jóge université ñu jóge ci daara ci ñoom la ñuy yaakaari alquran wala déet kon fexeel ñor ci bopp fan laa koy jëlee an mm-hmm. bi qawmin gaa yoo xam xam nga lan mooy tijaaratum seen commerce mm-hmm. sabru muñ mm-hmm. sabru mooy seen muñ muñ mooy seen commerce ñu ngi ci guddeeg bëccëg sabru nag ñaata la asabru ala taat asabru anil maasi sabru ala adan naasi muy muñ be doo jaar ci tànk bakkaar muñ be doo jégg mukk ci yàlla gis nga ko digal doo ko ñàkk muñ itam li la nit ñi di lor léeg-léeg mhm. nga di ko romb romb lu mu ne muñ boobu mhm. ñu ko jël def ko muy seen commerce mhm. ana ñu tey ji tey ji lu la nit def nga dem feyeku ji defante rek moo fi nekk defante rek defante amatuñu muñ jaamu yàlla mënuñu ko muñ wala déet ah toog jël sa kurus di wirdu di wirdu di wirdu di wirdu di wirdu bi nga yëg wirdu nga fi mu nekk dañuy mos rek téeméer rek ñaari téeméer rek xoolal ma yooyu foofu mhm. asabru mhm. muñ li la nit ñi di def ba mhm. romb romb la ko bu leen topp waaye yemu fa mu muñ tam be lépp loo xamante ne jëkkadina bu ca jaar bu ko abadan bu dee li ñuy wax te jëkkadina bu ca jaar de bu lu ñuy déglu te jëkkadina bu ca jaar de bu dee lu ñuy dox doxla te dina bu ca jaar de noonu lay deme ba yëpp jeex na asabru rek mooy seen commerce moo tax ñu sujud roko ci yàlla jooy wa yaqulu subhana rabbina eh in kaana waadu rabbina la mafoola suñu commerce bi jaay na jar jënd nañ de xamuñu nag fan la ñuy téereeg yàlla waaye jënd nañ moom wa yaquluna subhana rabbina hey eh, in kaana waadu rabbina la mafoola ndax wóor na leen ne ne jih nañu yàlla moo wax jih nañ jih leen jih leen jih nañu ba mu wóor leen ne nañu àll bi xamuñu nag ndax dina taw fan lay mujj yàlla lay wax ne ji leen ji leen ji leen ji leen rek ñu futteeku di ji rek di ji rek te gisaguñu dara lu sax mhm. nga gis leen ñu rukoo di sujud di jooy ci yàlla mhm. eh eh bu fekkee ne yàlla dina taw mhm. ndax jiyee nañ lu bëri ndax bu fekkee ne dina taw li nga ji yëpp bu naree sax da am lu rey moo tax ñu dem bay jooy ci guddi di wax yàlla ne ko eh in kaana waadu rabbina la ma fa nekkul na dañuy caali nekkul ne tam dañuy gëmul ne dana ñëw waaye dañuy bugg a wone ne li ñu ji ak a e bés bu tawee kon li ñu muñ ak moom bari mhm. e bés bu àllaaxira mhm. loolu mooy wax bi mhm. waaye tey jii ni gars yi seen muñ dafa lompoñ de dara lañ mënul ci muñ waaye jëxel wa shukru mu ne itam gërëm yàlla mooy gërëm yàlla cant gars yi yàq ko ci Sénégal yàq ko ba mu yàq fi sant yàlla an imal ala daawuda mu ne ko shukra yow daawuda laa wax jógal nga defal ma ay cant waaye Sénégal dañ ko yàq de bàyyi jeexal wala mooy wax fi cant nga dem wax naan cantu cuuni teglul ci alquran afala akunu abdan shakuran yeneen te wow lan moo tax ne afala akunu ndax du ma doon ci jaamam yi koy sant ndax du def cant lan mooy cantam dafa julli bi tànkam yi dina wi loolu lañ tuddee cant waaye cant di fecc cant di naan ay boisson <coughs> wala de alquran a ko wax mhm. lan yanaala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum junney nag nga indi ko rendi ko cant mhm. taxul yàlla gis ko de yàlla gisu ko walakin yanalu taqwa minkum saragal yàlla la gis mhm. lu jar a bàyyi xel moo tax ma ne la wa shukru cant lu am solo la waaw asabru wa shukru ñaari ponk la yu am solo ci métier gaay mooy seen commerce su mooy seen commerce dañuy joxe sabru ñu jox leen sukkur dañuy joxe mille francs ñu jox leen potimer taayenu ay ala doxali janna bi sabri wa salaati inna laa ma sabirin wastaayenu gis nga ko ala zikri bi salaati bi sabri wa salaati ay istaayenu bi salaati ala shukri wa tax mu ne la kazaka naka noonu fii sabki di njëkkalante rek mhm. alxayraati ci def lu baax mhm. wala déet mhm. lii yëpp boo gisee ndeysaan ñu di koy tàllal di leen koy tàllalal parce que mooy melokaanu taalibe nit ki bu mu xamul ku mu doon mën na réere boppam te ku réere boppam rek fooyee boppam wala déet boo demee ci ahlul xaqiqa dañ lay wax naan arif nafsaka taarif rabbaka soo nga xamee sa borom mooy fi ngay xamee sa bopp boo xamagulee sa bopp soo xam fi ngay teg sa tànk moo tax lu jar a bàyyi xel Mm-hmm. fan laa koy jëlee mm-hmm. ndeysaan mm-hmm. démb rek maag barke démb maag faa bi ñu ko déedéet da boobu buñ ko fàtte mu ne man li fan laay jëlee bi xaw min gaa yoo xamante ne xam nga sifaatum seen melokaan alxilmu sago kenn du leen tëkkaleeg sago du ñu gis dara bugg ko bi tëkkale ko seen sago waaye ci jamono bi yal nañ yàlla yërëm waaye Ablaye Wade la yërëm mu ne ñooñu dara du tax ñu ñàkk seen sago mm-hmm. alal du ko baree dañu mm-hmm. ñàkk seen sago mm-hmm. mu ko abada ala jaamadu dem dama leen koy nettal benn góor bu fi ñëwoon benn guddi gis nga ko ki nga xam lañ tuddee Moustapha Sarr xamante woon ak góor gi lu yàgg moo taxoon Sëriñ Abdou xamante ak sëriñ bi góor gu baax la woon waa joon waar la woon waaye ndeysaan xamante woon ak Sëriñ Abdou mu ne xamante naa kooku noonu ñoom ñoo nekkoon ci seen xale yi la bokkoon ba mu ñëwee fii guddi ba sëriñ bi moo ànd seeg moom ba ci néeg ba keroog mm-hmm. fee ndeysaan sëriñ bi toog ci lal mu toog ci kii bi mu di may nettali nag sëriñ bi di wax ne mu ne waxtaanal ko moom mm-hmm. mu ne alaaji dem bokk ci li ci gën a yéem mm-hmm. dem ba guddi am na ñoo gaare oto ba ñu gaare oto ne sëriñ bi lañ soxla waaw boobu nekk waa Jona mooy bokk néeg bi sëriñ bi ñëw gis leen ne ah sëriñ bi de dafa fatu ñu wax comme ñoom ñooy ñan président Lamine Guèye mm-hmm. moo nekkoon président assemblée mm-hmm. jamono yooyu moo uppoon doole président bi mm-hmm. Senghor moo ko wëlbati mooy seen problème bu ñu ko amee waaye président assemblée moo uppoon doole ci biir réew mi président bi comme ni ki Macky Sall moo ci biti la doon am doole waaye réew mi ki koy doxal moo uppoon doole mu ne moo leen yónni si ah comme gan yu mel ni waruñ leen a delloo il faut ñu gis sëriñ bi mu dem gis sëriñ bi ñu waa kon may ma tuuti daal di pare pare jàpp mu mu ne ba ñu yegsee wolif mhm. yi mhm. moom lañ def xaalis ba mu fees mhm. ne dañ dégg ne ne da ngaa nekk ci liggéey mooy tafsir bi ngay tafsir ñu indi la li jox la ko Lamine Gueye moo la ko jox mu ne pour nga dimbale kooku gis nga ko ci li nga xamante ne moom lañu ñuy tuddee te tafsiru mu ne jërë ngeen jëf bu ngeen demee ngeen ne ko ah ñu koy gërëm ci yëg-yëg bu mu am ci ñun ak taxawaay bi mu am ci ñun ndax ñun doomu réew mi lan mhm. te ko moo nekk suñu kilifa ci àdduna mhm. kon yëg bu mu ñu yëg kooku ñu ngi ko koy sant mhm. waaye nag walis bi dinaa leen ko dellu ngeen ñëpp ko teg ko ci loxo ne ko soxlawuma ko bu dee tafsir am na ay tool yoo xamante ne maag samay taalibe ñoo koy liggéey lu ma ca génnee ma jënd samay kayit ca des ma jënd ca ANCAR bés ba ko wax la de dinaa mm-hmm. mm-hmm. ko ko ko ko ko ay kañ lay soxla <laughs> nekk mm-hmm. ne ko ngeen delloo ko teg ko ci loxo mu ne noonu la bu doon sëriñu léegi hee ansu <laughs> allahu akbar ba mu capté ko <laughs> bébindeel ak moom allahu akbar amatul sagoom mm-hmm. mën naa xoolal kii mm-hmm. li alal ji bëri bëri bari mm-hmm. taxul mu ñàkk sagoom wala déet si faatuwumul xel mu ana ñooñu nga xamante ne seen melokaan mooy lan alxilmu mooy lewet kazaaka naka noonu a siduku dëggu dañu dëgg woon ak seen borom maa ca boole si nag xifse di sàmm nag al urmaati orma yi ana ñu ana ñu ñii tey ñi nga xamante ne dara mënu a ñàkkal seen sago ñi nga xamante ne dara a tax ñu ñàkkaa déggu ak seen borom mm-hmm. loo mën a indi ñu déggoog yàlla mm-hmm. loo manti même bu dee seen mbokk nga sax mm-hmm. du tax ñu dégg yàqoog yàlla ngir yow dañ déggoog yàlla sadakuma ahadullah ale yàllaa leen tàggee ci loolu rijalun sadakuma ahadullah ale ma aboole ci nag xibsi mën a sàmm al orma anamu léegi duñu sàmm orma wala de paalu jeg yàlla wala loolu lu ci jar a xel ñëwoon ñëw ba ci dëkk sirmang nga defi def bakkaar mm-hmm. ah yaa ña ko waruma mm-hmm. tey bi nga demee ba ses war a def bakkaar mm-hmm. nga génn dëkk bi bokk wala déet boo demee dara desatul du def bakkaar tàggu sëriñ bi ci daara bu la ko dara jaral boo demee ba sa yaram dem ba mënatul muñ bakkaar imma ca la ñuy naan la mooy naan dorog yi naan sangara yi yu mel noonu yu yàmba yi wala nga dem a dem mënatuloo téye sa bopp ci affaire problème mu jigéen ñi mm-hmm. wala nga dem a dem ba yow dara desatul lu dul di sàcc alalu nit ñi mm-hmm. di tëb sakkitu jàmbur yi di tekk xar yi di yóbbu mm-hmm. yooyu boo demee moom rek nga faree def ci dëkk bi ne si mi ñaanal nga defi ko feneen caal moo tax ne nga def ko fii fii da nga yàlla ko wax naa la nga wax du sama wax la in lam yantahi du alquran la in lam yantahi almunafiquuna wal murjifuuna fi lmadinati la nugriyannaka bi waxul feneen waxul fii taif la in lam yantahi almunafiquuna wal murjifuuna fii taif waxu ko wal jidda waxu ko fi la wax ñi nekk fii ci Madina nekk ci dëkk bu seli bi sirma di fi def dégâts ay erreur buñ ma moytuwule lu tax wax ñi nekk ci yeneen dëkk façon boobu mooy li ma la wax kenn mënatu koo defar mm-hmm. saafara mënu ko defar mm-hmm. jàng kaamil mënu ko defar mm-hmm. téere mënu ko defar fu mu dem ñu nekki bosam yàqu na bu mu dem ci àdduna bi ku ko xool ay affaire am nekki leen dem gis la àndal mënu ci defar dara parce que gis nga lu mën a defaru toj na ko yàqu na ba mu ne la anañu maa hifzul hurumaat ñay sàmm orma ya ana ñay sàmm orma anañu gisatuñu moo tax mu ne maa xifdul xurumaat mm-hmm. anañu mm-hmm. man ana mm-hmm. lii bi qawmin fan lay jëlee gaa yooyu nga xamante ne mañ xajum seen doxalin ba doxalin ba jeex man xajul rasuli mooy doxalinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen doxalin yëpp doxalin yonente bi royuñu gis nga ko ci yonente bi la ñoo anañ mm-hmm. moo tax en tant que taalib boo ko ne ko jàkk rek mm-hmm. da nga war a xam ne kii taalibe la mm-hmm. ci comportement ba ak ci colin ba ci waxin ba ci def defin ba loolu da ko war a xam ne ci taalibe parce que man hajur rasul doxalin yonente bi la moo tax lu jar a bàyyi xel ku nekk ñun fii ci daara ji sëriñ bi wax na ko fi mu ne nañu roy ci Papa Cissé gis nga moo tax mu ne anañu nag taalibe léegi dafay dox ànd ak sëriñam doo leen xàmmee wala déet te taalibeeg sëriñam pourtant waroo leen xàmme mm-hmm. wala déet mm-hmm. waroo leen xàmme mm-hmm. ci seen colin ci seen melokaan wala déet waaye taalibe mu nga gis nga ko waaw ah, léeg-léeg sax nga gis ku jël nopp ba sa bonn boobu baaxul kon man hajur rasul roy ci yonente bi wala déet moo tax ko dem ci ñoom mu ne ci yonente bi lay roy alaaji malik moo ko wax mu ne ak a sopp Cheikh Ahmed Tijani moo ko wax de alaaji malik mu ne ak maa sopp Cheikh Ahmada Tijani mm-hmm. waaye bu ma demee ba war a roy nag mm-hmm. ci rasulillahi lay roy mm-hmm. est-ce que ñi fooye nañ ko daara ji nu mu tudd daarul kitaabi wa sunna mooy lan alquran ni mu ko waxee ak ni ko yonente bi waxee doxalee ko noonu kon ñun ñi fi nekk itam nañ nekk noonu rek manhajur rasul mooy doxalin yonente bi sallallahu alayhi doxalin yonente bi ma jox la ما جهلوا قال ها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما كنت ذل تنقلي والذين إن عذاب الذين لا يشهدون الزور أشا مروا أه. والذين لا لا يدون مع الله أه. ولا يقتلون أولا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق مورو مورو <laughs> بري موكو مو تخاوجي مو دف اسباس تخاوجي ومن يفعل ذلك كوكو دف فسوف يلقى آثاما أها إلا من wa amanu wa amilu salihin gis nga ko ah ulaika yubaddilu sayyiatihim hasana inna allaha kana walladina continue yaa wax ne manhaju rasul nga bëgg xam mooy ñi aha rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin gis nga ko wajalna lil muttaqina mu ne ulaika yujzawna aha boobu mooy manhaju rasul boo ko bëggee xam wala bëgg ah? mm-hmm. la wala mm-hmm. boobu doxalin yonente bi mhm. mooy nii nii mhm. nga koy e doxalee mhm. jëlal melokaan yooyu jëlal melokaan yooyu boo jëlee melokaan yooyu rek yaa ngi ci manhaju rasul hada huwa manhaju rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci yàlla teg wala de moo tax ka ay zaka zina ah fa sawfa yalqa yalqa ah aman boobu moo ko damir moom moo ko moom mu taxaw ci espace taxaw ca ak am nga sa liberté rek di jàng alxuraan sa yaram tàng hmm. ah mu ne la déedéet hmm, hmm. waaw da ngaa fexe nag ba nga lan ah ah jël taqwa te wala <laughs> wala <laughs> lu ci jara bàyyi xel loolu mooy manhajur rasul kon boo demee boobu ngay jël dégg nga mu ne ñooñu anañu waaye léegi hee yamshuuna ala al ardi takabburan wa ida xaatabum jahiluna kaanu aksara jahlan <laughs> walladina yabituuna hmm. nawman <laughs> wa aklan <laughs> wa shurban wa hadisan yëpp dañ ko contraire hmm. ba fa ñu yëggi hmm. wala déet yal na jàppale te nag ne la gaa yi am ma ko jox moo tax mu ne man lay fan laa koy jëlee mm-hmm. bi commune gaa yo nga xamante ne man hajum seen doxalin ñëpp man mm-hmm. hajur rasul doxalin yonente bi mm-hmm. boo yëg see ci daara ji sir mag rek koo gis rek nga ne ah ñii dañu baax lañ ni ñuy waxee ni ñuy doxee ni ñuy jëflante ni ñuy xoolee ah ñii dañu baax lañ yal nañ ko yàlla defal alhamdulillah lu jar a bàyyi xel loolu mooy comportement bu rafet waaye ku ñëw rek ne ah foofu dem naa waaye foofu ñëw ah, ah, ñëw dama ba gis dalul sama xel duñu ay taalibe waxin ba baaxul Mm-hmm. doxin ba baaxul mm-hmm. dara jëkkul mm-hmm. boobu baaxul wala déet yal na yàlla jàppale ñu wala déet hakaza yal na yàlla jàppale waaw da ngay gis fii li ci gën a bëri mën nañu gan moo wax leen seen defo man ngeen gan man ngeen gan torop man ngeen gan loolu yëpp li ko waral mooy sifaatu cheikh maanaam melokaanu leeru sëriñ bi moom moom muur ndeysaan yal na yàlla jàppale dama lay wax comportement fii ci daara ji sur man maanaam kër gi ba mu jeex mm-hmm. maanaam mën nañu gan mm-hmm.